asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk internet yi seen football tv nuyu naa leen bu baax di am mbégte saa su ci Séville wax si suñu gaynde bii di Bakary gis naa ñu bëri euh, ci a de cela deux ans ci ginnaaw def naa moom vidéo dem naa fi këram ñu interview donc boo leen ko tapé sur YouTube sax da gis interview en trois parties waxtaan nañ ci lu bëri ci carrière donc euh, nekkoon benn joueur xam ne Atlético de Madrid Paris saint Madrid Barcelone avant que mu signé Séville équipe yi mu leen limal nii que papa moo jëloon décision ci jamono bobu jël euh, Séville pour seen formation et que aussi tamit boy bi am taxaway bu bax ci carrière am du coup nag boobu ba léegi bi ma koy def 15 ans la war am instant yii moo ngi am 17 ans donc euh, tay le jouer premier match am euh, gis na ko Youth League cette année donc tay jouer le match am maintenant nak li ñu gën a impressionné mooy début saison bi quand même quand même 7 buts mu ngi dugal ay buts yëpp loolu nak Instagram c'est boy bo xamante ne am naa ci mom regard bu bax ba bo amé 17 ans mom football league mom bu la ci kenn nak ku si am 17 ans bay ko xel. ni may bàyyi xel euh, ki ne Karayaat Baba Diop bàyyi ko xel Nuhun Sila bàyyi ko yeneen boy yu am 17 ans génération maanaam xaw ma ñaati jour ba si euh, rakku Keita Baldé bi xamante ne def naa ak moom interview noonu laa koy bàyyee xel li ma li ma neex si boy bi mooy que no il s'entraîne maanaam day entraîné wu entraîné wu comme coup franc yi par exemple xam day dugal coup mais nee daka entraîné entraîné ba sonn donc c'est quelqu'un boo xamante ne bëgg na progresser et que loolu c'est tout intéressant pour sama genre yi ñu a def ci yow vidéo parce que dañu xam ne liggéeykat nga xam kuy teg ay coup di ci laxas nga xam ne am na dara ba pare aussi tamit yàgg na bëgg jouer petite catégorie mais mooy li may wax rek affaire de question ça affaire de bi national wala yooyu mais fii moom boo jógee boo nekkul si club sénégalais yi fii fi nekk génération foot Oslo Daaru Salaam jàmbaar yu demee noonu donc ba si Dakar si kër kër duñu ñooñu lañu convoqué pour suñu petite catégorie alors que am na ñoo xamante ne ay sénégalais lañ fii lañ du sax affaire de bii national ñoo ngi Europe nekk si équipe yi gën a mag foofu Europe ñooñu war nañ leen mën a di jël comme ay coupe du monde ñu dem bi passe U20 ñii ay xale lañ mën nañu football ku xamante ne saa day taxaw ay 30 mètres di dugal di jël ay coup franc di dugal espagnol yi bëgg ko am na lu mu mën ba pare muy football bi xam nga xam nga Espagne am na Catalogne am na andalou ak yooyu moom lañ ko jël rek jël ko mu leen di représenté ñu si am ay trophée saa saa yu ko mën a dara ba pare waa Séville ñëw jógee foofu defal ko contrat instant signé na contrat depuis l' année dernière donc moom euh, li ma xalaat ci moom la nekk di confirmer moo tax dama ko doon laaj ma ne yow tu me un profil Benzema mu ne pourtant man Neymar mooy sama joueur maintenant du jouer comme Neymar il a plus un profil Benzema li tax ma koy wax c' est quelqu'un bu xamante ne euh, individuel dara il est assez collectif attaquant collectif la quoi attaquant yam am nañu décoré ses joueurs ci côté yi maintenant lay dugal ay bii yu bëri chaque année lu mu deewee bu néewee bu néewee benn quinze dina ko paasal moom quinze minutes moom dina ko jox avant ça ay dix huit ak vingt loolu doon dugal ay bii yu bëri lay dugal Séville moom xam naa ne du jël ci moom moo tax moom moom nañ ko ñaanal rek buñ ko ñaanalee du yàgg di ngeen di si équipe pro bi équipe parce que entraîné na ak ñoom euh, entraîné na ak ñoom entrain euh, tooti tuuti rek maintenant nag il faut mu fexe le tout ba jéem a yéeg si équipe première bi parce que entraîné ak ñoom c'est bien beau maintenant que nag Youssou Ndour am na Youssou Ndour benn visibilité bu baax Seydou Ndour foofu lañ ko gën a euh, ràññee Seydou Seydou Ndour bëri na ay jours yu xamante ne ba si ay Nkunku au temps du côté de Paris Saint-Germain fa lañ ko xamee bëri na ay jours yu xamante ne leen xam ne Youssou Ndour daf leen découvrir carrément seen talent ba tax na yenn équipe bu la jëlul sax mën nga dem

du sax ay binus naal moo tax ñu wax mais ay sénégal yoo xam fi lañ juddoo nekk europe bëgg football sénégal comme ñi nekk fii ñu bëgg jouer sénégal day tax équipe bi day gën a baax concurrence bi day gën a baax et loolu ki si gagné mooy e sélectionneur ak supporter bi xamante day tog këram di ñaan sénégal am ndam donc bàkkar yi saw li may wax ci moom mooy maa ngi koy bàyyi xel bu baax baax c' un joueur euh, bu xamante am na talent franchement et que nous souhaitons bon sens pour que nous gagnions non seulement pour du rugby, et pourquoi pas faire l'exploit de le gagner, c'est bien possible. Donc, si vous avez une vidéo, vous pouvez aussi vous un petit commentaire pour vous dire que vous avez un petit sur une plateforme de l'Union, Twitter, Instagram, TikTok. Si vous avez un Football TV, Inch'Allah, vous avez un logo. Vous avez un petit commentaire pour vous